pour bi lu ko waral muur sunna ak yonentu feeg rañaana bu dem te ma doon sax la kenn du ko moo tax leen di yow yëpp yónni ci kenn yonent yëpp dañuy rañaan yonent nag yàlla Muhammad moo ci rañaanee Jibril bi dem waaye yonent yi ci dëgg ku ci nekk rañaan ne ku jëm malaan bu weex bi mooy coccale lu baax li mu yore malaan bu ñuul bi ko takkee mooy takkale ne fay sonn waaye nag sonn bi wax dëgg yàlla lu weex li malaan bu ñuul bi lu weex lépp gën a yàgg kon lu tuuti la mu cër sa ndaw soo sore nga lay am njëriñal sëy lii la ne malaan bu weex bi yëpp noonu la nekk yonent ma bu ma war a liggéey wala sariante safri mu ngi koy jëlee ca maloo la foofu la ko ko yàlla joxe waxuñ ne du sëy waaye bu sëy see liggéey bi mu war a am amu jox liggéey bi ñu ko war a jox jox ko ko ko duñ ko muuree duñ koy digal mooy bu demee liggéey foofu laay jógee jëlee far bi ma tax ñu di bëgg jigéen bu muuru jigéen bu muuruwul bàyyi na sunu si Ibrahima dafa nekk sunu soo xam ne si jigéen ñi nekk da ko war a du ko wàcc mukk mukk lu mu doon a doon mag bu ko defut bu ko sariya si yéegee daf koy muur loolu def naa ko ci sama njaboot bi dafa di sàll ci sëy ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nit dana sëy ba am doom doom ci sëy waaye bu ma liggéey xam ne muuru rek man dama koy muur ndax ñu def sunna dekkal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dundal sunna fi Ibrahima soosu bu liggéey doomam yëpp kum ci mayee def la am muur moo xam te jamono ba gaa yi waa di nekkee te jaahiliya ci kër ya wala bi nekkee a waral mais Fatimata bintu doon ko muuree moom ci boppam moo ko jiitul boppam sunu soosu ku ko génnee mooy Saxd ibnu Musayyab Saxd ibnu Musayyab moo muur doomam jiitu Muhammad ko ba àgg ca moom jëkkëram na ko fëgg na ko ubbil mu ubbi mu ne ko andil naa la sa jabar ba duggee lii la ko digal yow sama doom ji jigéen nekkal ci suufam mu nekk sax asamaan nekkal ci jaam bébéram bu jigéen mu nekk sa jaam bu góor nëbbal ko ay mbóotam mu ñoŋal sa der mu ñal ko atam ñàkkam bu xamee rek la koy jox topp toxal ko xalalam bu fakkanee ngeen bokk ca sedd ak seen njaboot liggéeyal bu béy bu rëy ndax nga jëriñu sa njaboot jëriñu xamal ne tey bàyyeekoo nga ci kër nga miinul ak ci kër yu nga miinul ak nit ñi nga miinul da nga fas yéene ànd ak ñoom loolu xel mu rëy mooy tax nga mën a nekk ak ñoom yow jigéen bi xol bu yaatu mooy tax mu mën a dal yow jikko ji rafet mooy tax ñu mën lay xuux jigéen bu yóbbuwul loolu bagaasam lu mu bëri bëri bëri bëri bëri la mu yóbbu ca kër ga du tus buy xalal du tus buy taar du tus buy xaskan du tus ndax yonent bi ma wax jigéen xalalam ak taaram ak xaskanam ak diinaam buñ dajee bu fekkee ne diina ñàkk ci rek jigéen jooju du dara du jabar du dara ne ne tunkahul mar'atu min arbaati asiyaa diinuhaa wa jamaaluhaa wa maaluhaa wa xasabuhaa ba fa asabta yaddaka saajunin farabat yadaaka yow góor gi boo bëggee jabar jigéen takkal jigéen joo xam diine ji bu ko defee loxo laal nga ci moom potee xepp waaye jigéen joo xam saar saar bi boo xamee doom amati doom mu màggat mu ñaaw yàlla lu mu xamee du ko mayee lu dul ñaawaay dana ko nangu ñaawaay rek laa may nit te du ko nangu moom daf koy yokk abadan waaye taar de koy nangu bu fekkee aw xas kanam mu di ko see aw xas kanam du fi baax wala wane wanee ne gënuloo ma suñ kañ yaa sangam yow jëkkër ji yaa di sangam a qawwamuna ala nisaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci madinatul munawara def na benn xaate boo xam ne bii nii yàlla bu fekkoon du ndimbalal yàlla kon dana cee am laana yàlla benn jigéen ci moo dikk na ko sama jëkkër fa may kabaab rek toujours fa may dóor rek yonente bi xool saabu yi dikk mooy dañoo mujj yar dikk ñu tër ko dóor ko dañu ku jot jëkkër ji lu tax mu koy door war ko door fi mu jëm nga ci yar biñ dikka rek jibril ne cëpp ne arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa bimaa faddala Allaahu ba'dahum alaa ba'din wa bimaa anfaquu min amwaalihim fa saalihaatun qaanitaatun haafizaatun lil ghaybi bimaa hafiza Allaahu walaati taxaafuuna nusuusuhunna fa'ansuuhunna wahjuruhunna fil madaaji' wadribuuhunna fa in ata'nakum falaa taxuunna alayhinna sabiilaa yonent bi teg loxo ba ci digg bopp ni nga ibu tuxu doon ak yàlla kon de tey ma def loo xam ne bi ci lislaam meram yàlla laa da ba yoman ko yaamati waaye yéen góor ñi da ngeen di dóore seen jabar jëlal fas ci takk lex bi dafa du ma la bañ a doon ayubal day danaa la rukkaloo wala ma ayubal kon jigéen jëkkëram duut sangam rek am ci waaye mooy wéedu mu mooy wóorere bu ko nangoon nekkal suuf mu nekk asamaan di taw ci kolom bu ko nag nekkal mm, mm, jaam lu mu liggéey nga jëm bu ko nangoo dencal mboosam lu mu xam wax ko waaye jigéen yoo xam ne jii lu la sa jëkkër wax boo demee sa kenn ba nettali ko dootu la waxati dem sa kenn jigéen yoo xam ne jii lu sa jëkkër liggéey yi li ko jox la ko nga yàq fasar fasare ko yàq gis da nga torox da nga xiif da nga mar da nga rafle jigéen yoo xam ne jii nii mënata muñal jëkkëram dara dara dara dara dara dara dara lu mu ci weex lu mu wax mu dañal ko ko yàlla na am doom joo xam ne bii sax danañ dangeen dara laa di wax rati olof nee na kuñulu fa doom yàq sa jëkkër waaye nee loolu nekkul ci yaxab alquran nekkul ci li ñuy jàng ci alquran waaye yaxab alquran la di yàq sa doom sa jëkkër boo koy xiibalee rek sa doom koy ray ko boo ko teree lekk rek sa doom jël ko jël ko boo ko teree naan rek sa doom ba ko jël di gën yarante nekkul ci jigéen ji xaaya ndax jëkkëram doomam du def seen mu bënn mukk na fa yamal jigéen ji tegal jëkkatam doomam xiif ah, moo koy rey bu mooy dee ji ëllëg xiif a koy rey jigéen ji yàq dépasse doomam du mën a am dépasse du yamal fa yamal wax leen na leen bu ñemee nañ góorgóorlu nañ tataayu néega sëy barkee caay nekk waaye bànneex nekkut bànneex mu ngi leen ci ngoro boo amee chance ci la ngorox ñam ci la bànneex xam waaye ne u liggéeyoo kaay la duhut moom mbagg jëkkër tànk xam ne kii nii gannaaw yàlla yónnent bi mu ëpp ci bu la gërëmee nga dugg àjjana boo ko merloo dugg safara yorante bu la gërëmee nga dugg àjjana boo ko merloo dugg safara rek ko ci jarut ci amul mën na laay duggal àjjana bu la merloo safara nay góorgóorlu jigéen dafay topp jëkkëram warta xam xarit ku dul jëkkër warta xam kenn ku muy àndal ku dul jëkkëram warta xam mooy jégg woo xam ku dul jëkkëram ndey ak baay sax may doom jëkkër amatuñ droit yéenee ko ndax amatuñ droit yéenee ko ndax te duut ñu tàgg amul droit tukki duut ñu tàgg jëkkëram ni ko dundama ko dam waree lépp lu ñuy defati ci moom la kilifa bi dafay soxol ci ndey ak jëkkër kon maa ngi leen di digal ñu dem góorgóorlu ñun jigéen ñi sëy maa ngi leen di dénk ngeen di téye ngeen bëgg seen tànnañ seen jabar yi téyelee leen ko loolu yéen a ci wax ñun takk jabar dee di yooree seeni jabar li ngeen bëgg ñu yooree ko seeni jigéen góor lu mu bon bon bon bëgg na ci yor jigéenam di ko teral waaye jigéen nit lu mu bon bon bëgg na jabari càmm ñoom fonk ndeyam kon nag is na ama seexta kamaatu diinu sa daani yow jigéen bi boo fekkee booy dëkkee kër jëkkër ji na dëkk jigéen ñi ñu ngi fi fekk ñëpp doo def ndeyam mooy nit doo ko def baayam mooy nit sa tàmmiñ bu jëlee jabar moo laa def sa ndey ak sa baay loolu lebal sàmba bu bàcc dikkee fay la ko ku bëgg lu baax dafay def lu baax lu baax na nga leblee noonu la la yàlla fay jigéen bi muur nag lenn rek laa koy eh, eh, yërëmee mooy mu wéde di ndax nit bu wéde de du mën a liggéey du ko may barke waaye yërmeetuma ko dara ma xamal leen ne yéen ñi muuru di sëy jigéen bëgg jëkkëram topp ci kawam moo gën mu fexe ba jëkkëram bëgg topp kawam di yëllëx yëllëx ku ci rek na sa jëkkër ba mu topp sa kaw di yëllëx yëllëx fa doom jox gannaaw ko di jëfe fa doom bu dikkee rek day toppaate ma xamal leen ne njël ci koy joxe ak ko koy xenu mooy ci xenu leket bii dem ci euh, ci meew ndugg di ko andi euh, borom kër gi jigéen na ko jur ci joxe njël bi itam jigéen na ko jur waaye jigéen ji joxe njël jàpp ñu jëkkëram ñu jigéen gi nga euh, góor gi nga xamante ni doom gi nga xam ne dafay nenu nit ki di ko yóbbu si ñii di ko yóbbu mooy baara ñu ne bi jigéen na ko jur waaye nag fa defoon bàyyi yaay jëkkër ja bàyyi jàpp doom bi baara ñu ne moo tax doomam bi nekk baara ñu ne waaye bu ko defoon sa kaw yonent bi wax na ci hadiis nee na jigéen bi bu fekkee ne dafa sëy daf jëkkëram comme yéen ci yàlla Muhammad loolu su borom xam-xam yee ko ma wax borom xam-xam yi ñoo wax ñu ne bu fekkee ne jigéen bi dafa def jëkkëram comme sa jigéen bi ñun tam yéen ci yàlla Muhammad yéen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom tam jëkkëram dana ko def ñu yéen ñun ci yàlla Muhammad def sa jigéen sallallahu alayhi wa sallam waaye nag nga am sa jëkkër daf ko sax ci sa gannaaw loxo te kat mooy sa bunti ci adduna mooy sa bunti loo ko muy nit dëgg yàlla boo xam ne sa doom kenn du ko def maa ngi wax ne dindi leen musóor yi takk ko ci ndigg bu ko defee bu doom juddoo loola mu nekk kaala ci moom boo defee musóor bi tagal ko mu ne ñoom ci kaw sa doom du am kaala mbir mi liggéey bi kenn la fay bi ñaar la kenn nag bu bëgg a xëy xëyal xëyal boppam ak doomam war naa teel dem war naa góorgóorlu war naa nangu tànk mooy liggéey ba xam sa yàlla war a dem àjjana liggéey ba sa doom barke loolu ku koy def bu wéradee du ko mën maa ngi yërëm ñetti ci sëy te maa ngi yërëm ku daw jàng te maa ngi yërëm ku solo soldaar te xamut wétu yaram xamutu fit xamutu fit ku dugg ci soldaar fit da nga daw sa gara dara ñàkk garaat jigéen bu duggee ci nit sa wér da nga war a liggéey du ko mën a liggéey te comme ku bëgg a jàng itam te amuloo xal da nga sonn ñett ñii ku leen yërëmut ku leen ñaanalul itam ku ma def maa ngeen di ñaanal nag yàlla dimbali leen ngeen am doom yu baax doom yu baax yaay ju baax a koy xam ngeen bu baaxee wut jëkkatam dafay sonal boppam sëy nag bu fekkee ne sëy bi barke na yàggut ñaar fukki at ak ñeent rek la ñaar fukki at ak ñeent da ci am doom ju tekki dara di góor wala doom ju tekki dara di jigéen bu fekkee ne na xam nga ñaar fukki at ak ñeent xamuloo doom di fekk dara ci góor xamuloo doom di fekk dara ci jigéen xamal nga te ñaar fukki at ak ñeent baaxul sa kattan la te dootuloo ko mën a def ndax sa doole day wàññeeku sa kattan wàññeeku te sa xol dootu ko mën kon nag futteeku leen yéen ñuy sëy yéen ñi nga xam ne yéen di góor yi denc yi tam futteeku mere naa lool maa ngi maa ngi rëbb ñu yonent bi rëbbee yàlla rëbbee góor guy xuloo jabaram foofu daal dam xaw yoonu denc kooku ku ñàkk kersa la ku kuy weer jigéen la jarul dox jigéen waaye itam maa ngi rëbb ñu yàlla rëbbee yonent bi rëbbee ko jigéen joo xam ne bi bu commencé xuloo jëkkatam rek foxtu rek génn taxaw ci liggéey bi wala mu waa ko jëm ci kenn ko nan ñooñu ra yàlla rëbb na leen te dana leen jàpp yàlla kum rëbb jàpp la yàlla kum rëbb jàpp la baaxut ñàkk kersa la waxtaanu jëkkër ak jabar bu ci rombee biig lii bi weer fekkere dikk na isaa jaawatal isnaani sirrun fa innahu bi bi nafsin wa issaa'il haadi fi qarnin loolu ara wax mbir mi daal bu ñu ko waxul ci nii bi doom sax warul koy dégg doom sax nawle la warul koy dégg li ñuy war a wax nañ ko wax ci biir yoon li ñuy def nañ ko def ci biir néeg bi li ñuy wax nañ ko wax luñ mën a wax ak luñ mën a def man nañ koy defee ci biir néeg waaye daal diggante bi moom ñàkk sutura saaga baaxut ma de sama doom ku ko saaga ma déggu ko danaa la def ni sarixatul danaa la sib sene mooy dafay xaraam ci yow feeg saagagut la saaga woon na ni ñu ko saaga loolu la sarixatu bind de kon nag rawatina bu fekkee jigéen ji moo saaga kon moo tam jëkkatam daf koy xaraam feeg jëkkatam ji saagawut ko saaga woon na ni ñu saaga te saaga du defar dara kenn du ko yore doom kenn du ko saaga sax man dama koy àtte ci sariatu ne yabaate la dóoree moom tubbanti la waaw waaye nag saaga moom yabaate la ndax bu sax bu ko alxuraan tuddu doon ma dàqu ko ndax ndox la ak coxat ndox la ak coxat koo xam ne fii ko indi pour mu dina dimbale taxawu la li nga gën a yaakaar nga dénk ko ko muy doom nga jàllale ba ko di mën a wut eh, yar wala xeet wala kurpañ di ko ko dóor loolu ak ndox la ak coxat loolu ak am ndox la ak am soxal waaye bu alquran waxu doone ku ko def sa jabar ngir mer it buñ la dóor koo ko def moo ci ma santaane ni dóor waaye comme yàlla jaajee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ay maye it daal wax ne bal dóor bal saaga bu defee lu bon wax maa ngi leen di digal ngeen góorgóorlu maa ngi leen di digal ngeen takkaayu yéen jigéen ñi maa ngi leen di diggante digal ngeen am fulla seen diggante yéen nga seen a dëkkat ba leen nangu kenn dox ba leen nangu kenn dox ci li ngeen am ak ñoom wax leen leen ko li ngeen soxla wax leen leen ko li ngeen bëgg tawal leen leen ko liñ xam nañ doy maam Aliou Cissé bu muuraan bi leen dafay wax ne noppil noppi naa bal dem toog naa andi mu ne am ah mu ne mu ne jigéen su ko nekkee jëkkëram kenn du leen dégg seen wax bu génn néeg bi waaye du génn ëtt bi waaye du di ko ba si mi waxuma laa xar mooy dem dëkk pénc foo ji déggee coole rek ku góor ki lañ ko sant dara ki ko jigéen bi dañ ko sant dara mu bañ bu paree nag bëgg na yàlla indi ko góor bi ñu defal ko lim bëgg déedéet loolu mënul xam loolu mënul xam yàlla sax boo ko nangul lim la sant mu denc la mbugal ak duma ak am neex rawatina jëkkër ki nga xam ne moom nit rek la baleen fontoo seen jëkkër jëkkër duwul fontookaay jëkkër wutookaay barke la ak tiyaaba ak ngërëmal yàlla ak ngërëm euh, doom yu bat kon feteeku leen góorgóorlu leen liggéey teel a xëy yéex a wàcce te bu ngeen dee bala ñett di safal mindal sax dee leen di mindalu dalee leen ca fajar di kër këri ba pexe ba fa ngeen di xoolee jàkka ji ngeen for na ngeen nelaw loolu jigéen di ko sàlloo boo demee dool dama dana am doom yoo xam ne di fay taxaw di wax rek nit ñi di def man leen di dénk muñ yéen góor ñi dee leen di wuti te dikk di jox seen jigéen ñi yéen jigéen ñi liñ leen di jox bu leen ko yàq jigéen kenn wut loo wut ko fañ ko deferloo li ñuy wut jël cër buñ loo wut ko dañ ko defar loolu la ñuy wut aada bi ngeen gis nag nekk nit ñi di def jigéen ñi loo nekk ñu di ci dugg euh, euh, commerçant di dem ku nekk di dem ak dëkk loolu kat tubaab yee leen ko teg waaye alquran dafa wax ne wa qurna fi buyooti kunna wala tabarajna tabarujal jahiliyati loola wa aqimna salaat ak waskurna maa yullaa fi buyooti kunna min ayatillahi wal kitabi wal hikma bu ngeen di jàng toog leen di lii bu ngeen di julli jullee leen ci biir bu ngeen di liggéey léeg leen ci biir soo leen yar njaboot bi yar njaboot bi leen yàlla jox day defar leen xalal ju leen jëkkër ji jox jëkkër ji yow demal ko yow lañ ko lool jëkkër ji yow demal wuti yow lañ ko lool jigéen ji yow defar lañ la def lool jigéen nag bu fekkee bu jëkkëram wute bu dikkee jox ko mu yàq ko dana toroxal boppam toroxal doomam toroxal jëkkëram ndax fut ak yàq mën ta ànd mukk mukk mukk mukk mukk fut ak yàq mën ta ànd mukk mën ta ànd mukk fut ak yàq am du ci topp mukk put ak yàq am du ca topp mukk put ak yàq am mënu ca topp mukk maa ngi ñaan njaboot maa ngi ñaan njaboot sëy garab la meññeen moom mooy njaboot maa ngi ñaan njaboot sëy garab la meññeen moom mooy njaboot yal na yàlla may njaboot yàlla may njaboot bu baax bu bëri bu barkeel yal yàlla may njaboot bu baax bu bari bu barkeel ñu góor ñi yal na yàlla ñu am xol bu yaatu buñ mën a amee joxe alal deret la tàggu ko ba sonn ko jot ko jox ko nit ki mu di ko yàq nga di ko xool il faut que nga ne ko baal yàq bi waay il faut nga ne ko baal yàq bi waay jigéen nag nga xam sax bu sàccee alal jëkkëram sax xaraxe am na tiyaabu bu jëkkëram mottee mu sàcc dolli te nit ñi suur am na tiyaabu waaye sàcc yàq moom sàcc yàq moom sàcc yàq moom dar jar ko sàcc yàq moom dara jar ko sàcc yàqu moom dara jaru ko ku koy def yaa ngi sàcc sa war sagu doom yaa ngi sàcc sa alalu jëkkër yaa ngi yaa ngi sàcc sa war sagu doom te dana denc xam nga lu tax banu Israël ak arab yi ñu bokk te wuuteem seen maam dafa sàccan seen seen maam insim ni Yaqoob moo Ismaïl ñoo bokk ndey ay nekk Yaqooba Euh, yaxya ak yanqooba ak mees yanqooba ak mees ñoo bokk yonte yàlla yaxya moo leen yonte yàlla ibrahima moo leen jur ñu ne ñaar lañ ci seex ñoom ñaar ñu bokk juddu euh, yanqooba mooy waaw yanqooba yanqooba mooy ku gumba ki mu xam ñaari doom wax benn doom bi ne ko boo ma rëbbalee kiwél dama soxla yàpp kiwél boo ma rëbbalee kiwél dinaa la ñaanal ba sa njaboot bi yëpp gën ñëpp te ki mu koy wax mooy banu Israël bi yaay bi dégg ko wax ko ki nga xam ne mooy yaay arab bi na ko gaa dégg naa kat sa baay wax sa mbokk mi ne ko bu ko rëbëree kiwel ba mu xam ko dana ko ñaanal am njabootam di kilif sa njaboot ba yow am xiyaama jare góorgóorlu nag bu metti ñàkk jigéen ñu baax noonu lay defal doomam doone wujj wi daal di jox dem jàpp benn mburtu doon baayam ray ko wàjj ko di ko jox ko bàyyi na ko bàyyi yàpp waa ngi nii yàpp mbur fa niroog séwél mu lekk ba suur di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal ñaanal ñaanal ñaanal ba xolam sedd mu làmb yaram moom fii fii fa bëri woon karaw fii bëri mu gis ma karaw ah duur yow yaay duur waaw waaye rek man de maa la defal li nga bëgg ñu ko kon defa yaay jàppale na la jigéen dafa jàppale xëy toog ba ngoon mu janjangi ñëw ba fekkee fee ci raw yi en tout la ma waroon la yow day xam ne ko fa jàjjël mu jàllale ko fa noonu dana rey doomi bàyyi il faut dana ko rey bàyyam toxuloo mu jógee ko fa mu dëkkoon di ko sare talen dëkk ko mu jóge mu bàyyi ko dëkk misra dëkk si moo leen xaajale ñii moo jël banu israël ñii ñii ci arab fu ñu mën a toll rek banu israël ba leen yëppee war sax ci arab yi ñoo leen gën a tedd te ñoo leen di dëkkee ndax ñaanal bàyyi bi baax su dee léegi jigéen ñi góorgóorlu leen ci doom doom da nga koy digal te digal ko mu topp baayam fekk nag yow nga doon topp baayam ba nga soog ko digal mu topp baayam te dañ ci wax na ne ku sa yaay gërëm da nga dugg àjjana ku sa baay gërëm da nga xilif say morom te loolu kay ku ko xam rek sa duna baax na saa laata baax na ba sa yaay gërëm la nga xilif euh, sa nga dem àjjana ba sa baay gërëm la nga dugg àjjana nga xilif say morom loolu yaay moo koy farataale ci doom waaye yaay yoo xam ne ji nget nget nget nget nget nget diggante moo bàyyi ba doom bi judd du puusi doom ji mukk muy defal lu ko bàyyi may gërëmee ba muy élité moromam noonu laay tegee yooyu di dem di dem di dem di dem ba bari ngërëmal yaay bu ko ngërëmal yaay rek lakk sa kon yaayam moo ko lakk beneen saaga seen doom yi saaga baaxul duwul yar saaga baaxul duwul yar saaga boo gis rek yabaate la koji moy sagara yawacana am na si jigéen ñoo xam ne ñu nag bu ñu meree seen jëkkër saaga seen doom yi bàjjen ñu saaga bàjjen bi loolu saaga waroo benn bàjjen bi jëkkër ji dëgg nga saaga sa kilifa nga saaga loolu reewande la loolu reewande la loolu reewande la doom duñ ko saaga bàjjen su meree bàyyi maa ngi digal ko góor ki li sama nijaay alaaji fi sala daan digal dëpp taale ba buy ñibi di ñibi ko wax ne ko ñeent bu ko sa jabar xamal sa poos bi jeex naan jeexut munu ko xamal bu defee rek mu weer sa kàkka rek wala néeg dugub ba digul ga jeex naa wala jeexut moom xam fëggule nga am déet bu defee rek mu weer sa sekkere bu fekkee jigéen ji bon la dana weer sa sekkere mu ne bu mu xam bëgg nga ko wala bëgguloo ko bu fekkee xam na ne bëgg nga ko rek dana fexe nga nekk jaamam di daw naa gannaawam loolu moo gën a bonti moom sama mu loolu la bëgg mu ne ko bu mu xam ne bëgg nga doom bu bëggee doom boo bëggee doom ba mu ko rek bu la melee rek sippi ko ci say doom ndax nga nekk mu ne bu mu xam ne bëgg nga lekk boo xamee ne bëgg nga lekk rek bu la meree rek xiifal la mu yàlla ji bëriwul loolu daan digal nit ñi laaj nga moom li mooy digle mooy ne taalibe ak jigéen liñ gën a bëgg moo gën a bon ci ñoom mooy taalibe dafa bëgg sëriñam yëg ko bëgg ko jigéen dafa bëgg jëkkër yëg ko bëgg ko déedéet ñam ñi yëg bëgg moo gën dee leen leen di xodd dee leen di dëkkaloo fu ngeen leen dëkk fu ngeen dëkk dee leen ba ngeen fay dëkkal bala leen séefal bala leen maral bala ngeen eh, ñàkkee eh, seet yéen yéen dem leen jigéen ñi ba leen leen weer ba leen weer parce que alxuraan wax na ne góor gi ñun man na laay yoree jabaram fi mu dëkk fa laay dëkkale jabaram ak ci noohu na min hay sa saqantum min wujjikum yow di góor gi ngoroo xalal ju bëri sax nga di ko yoree ko sa jabar di ko fi naal du dëkk ndax ak jigéen buñ ko yoree buñ ko ngoroxoon walaw aatatum ihdahunna qintaaran fala taaxuduuhu minhu shay'an ba leen jël ci ñoom dara wa kayfa taaxuduunahu wa qad afdaa ba'dukum ilaa ba'din wa axadna minkum miisaaqan ghaliizan bis boo ne ko takk naa la rek mu def ci yow yaakaar nga yàq yaakaar jëli loolu jaadagul ci yéen góor ñi yéen jigéen ñi itam góorgóorlu leen yor daal boo ko xeebut mu baax ko xam ne ci moom wóor la ne moo mën ko jàmmeñ nga xeeb ko loolu du dëgg kat du dëgg kat لول دي دغ كات بارام كات سن جكات جكات دي نكو خيب بالان خيب ليم لين دي جوخ بالان ياكو ليم لين دي جوخ بالان وير سن سكر توك لين لين لون نيم ديغال سن نيم دي ديغال لو خامي لي جامو يالا ولا كفر اك بوك دي لين كو و ان جاءاتكم من حالا ان لا تسان على ان تسلك بما لا تسلك بي ان فلا تسيهما rek ñu nak dem ne ba nga xamne moy ndey bi moy bay bi moy jëkë bi wala yàqal mbokkam te nag jamono boobu nag jartu ko sax ko defee boobam nañ ko ba bu defee defee itam yàllaa ko kilif lu mu la mag mag yàllaa ko mag lu mu nekk sa kilif te yàllaa nekk kilifam maa ngi leen di digal ngeen góor sabran jamilan na ngeen muy mu néega fay ñu ko waaye nag bu ca barke nekkee dana mujj neex bu ca barke nekkee dana dana mujj neex loo xam ne ni sa doom sabar mënu la koy defal rek dëkkan mënu la koy defal rek bu la ko sa doom defalee wàccil moom mu mel ne moo la ko defal danaa leen nettali sama benn mag du ma wax tur bi dafa am ñaari jabar benn jabar di jëkk yónni doom dina ko demal na ko sa mu may ma ñaar fukki dërëm ma jëm saabu mu ne ko dafa bàyyi bàyyi sama yaay nee na nga may ko ñaar fukki mu ne boobu ma sa yaay ko wax xam nga ñaar fukki dërëm doom bi dem na ko bàyyi sama yaay bi nga xam ne mu lay dëkk bi ni mu jëfee ah xam naa ne kay xamul gis nga ko nangu na beneen jawar bi dégg loolu wax jam doom jeneen doom ñu ne ko demoon na ko sa baay mu may ma na ko bay bay soom bi yaay ne nga may ko ñaar si dërëm mu jënd sa mu jënd saabu góor ko loxo ca poos ba ma teye poos ba ak loxo ba na ko lii kenn du ko def kii ñaan la léegi ñaar fukk joxuloo ko ko kii ñaan la ñaar fukk léegi jox mu ma hey bàyyi ma ma jox ko mm, bëree boo xam ne yàllaa galgal neex naa kott boromam mu daanu mu ne mu ne ma ne ko lu tax mu ne kii bu ma ko joxul ñaar fukk doomam dana ko mos a joxe ñaar fukk kii bu ma ko joxul ñaar fukk doomam du ko ko mos a jox kon ma jox ko bii ndax moom ñàkk bii moo tax kële moom doomam dana ko ko mos a indil moo tax ma jox ko ko kon nag jigéen ji jar jar dugub euh, li nga mën a am ci sa jëkkër sa wujj mënu ko ci am loolu du jar loolu du sa njar loolu du sa kër nit ki loolu du jar loolu du kër nit la boo xam ne bii fuñ lay daanee ci ëllëg yàlla pare na ko ba ku ci seen kër xanu dara jox ko sa wujj xamal ne faraay dimbali yàlla galgal na ko ba pare moom faraay dimbali booy kotara boo ko defee ne yenn jigéen ñi mel ni Sophie Diagne la muy xaatar xaatar wala li Sophie muy xaatar xaataree foog ne man day man lii man laa kët ak lii kët ak laa déedéet loolu liñ bon na yéen laa ko war a wax ak yéen bi sama mbokk góorgóorlu leen yéen ñii ki ñii wax sen bàjjan leen bu ngeen demee xam ah. seen bàjjan sama seen ñun noonu lay waxee maa leen maa loolu góorgóorlu leen jëkkër jëkkëram jigéen dana ko xañ ñaar ko waaye daf ko wóor ne ko doomam dana ko joxe ñaar ko kon ñaar fukk ak tey bii na ko ko xañ ndax mu jot ñaar fukk mu may ko wujjam mu foog na fu ko gën a nopp wala ko gën a bëgg déedéet bu ko fa may yëpp ko xam lii la baatin te sama bàyyi alaaji Saliou Ka wax na ma ne borom kër lu mu ñàkk ñàkk ñàkk xam-xam mën naay seetal jabaram yi ki baax doom ak ki cee lum ñàkk ñàkk ñàkk xam-xam mën naa feetal euh, jabaram ki see baax doom ak ki see boni doom xëy te it yéen jigéen ñi maa ngi leen di dénk yéen ñii di sëy maa ngi leen di moytu ñu ko lool ngeen xam doomi jongoma doomi jongoma doomi jongoma boo dikkee ci kër gi daa fekk bàyyam ngëf ko kuma ma jëm ànd ak moom waaye bàyyam xam na ne àndoo googu ak ngëf googu te mooy dund la rek waaye bu jeexee mu topp mbokk mi wala mu sorox doomi jabar a gën doomi jongama doomi jabar bàyyam bu doomi jabar a jooy sax bàyyi ni ko yéen eh, di ko jël sa doom ji sa doom jo bëri wax jule li mooy nudu bàjjinam safi mu di ko jël si ko waaye doomi jongama ne dina moom buy dem bott ko andi eh, yow bottaay bu fa métti andi eh, ma ngëbal lu ko nekk di naf nafee di kooku doomi jongama la bu gisatul bàyyam rek dana toppe ñuy wax ne di ko jël si sa doom doom jooja mooy nekk bàyyam mooy nekk baayam mooy nekk baayam mooy nekk baayam doom ji nga xam ne di ko jël si sa doom ji lañ koy wax boo ko def doom ji ñëw bocc ko jox ma ndax bootaay bu fa métti loolu ak ak naxaate la ak ak yongaan la yo alquran am jil fum rooy den kon ak silil kafirin am kii buñ ko ngëbalu doom ji bu toggee reer ba pare balaa jëkk jee reer dana ñaqtee xett kii buñ ko delloo doom ji buñ toggee ba pare it andi reer bi jëkk ji reer te dara da ko sa xew kon kële ngëp doom ji dañ ko ko jandeelee pour reer bu ko defee mu foog ne mu ngay nax kële naxut ko kële ko nax këlee ko nax ki ñu wax ne eh yow di ko jël sa doom ji bëri wax ji le moo ko nax moo ko nax bu ko def ki ngëbal doom de ki nga xam ne kii ne boo ko xañee ñaar fukk doo reer ki nga xam ne boo xañee ñaar fukk teewul mu lu leen neexal indil la reer buñ demee ba ca paya yàlla ga duñ ñu doome jongoma lu ko yaayam di dénk bu baayam dee toppal ndax ku baax doomi jabar li ko yaayam di dénk mooy ruufal say rakk ndax ñu euh, xam ku dul yow wasalaamu aleykum ñii la ko sama baay waxee ba kon maa ngi leen di moytandiku loo doomi jongama ak doomi xëy di ko jël sa doom sama euh, sama nijaay ndax bu ne nag waxoon na ma ne boo jubee kër di sangi ngoro jigéen ju la yë boo dikkee bu kët borom kër gi jigéen ju la indi njëkk a indil ndox nga gis caabi borom kër gi nekk ca kër néegam euh, ca loxam bu fekkee na doom bul ko takk lii nijaay Nafa moo ma ko wax lii nijaay Nafa moo ma ko wax lii sama nijaay Nafa moo ma ko wax moo ma moo ma wax ne Muxtaar booy ngo booy ngoro ji ci biir kër boo demee jigéen ji la mujj euh, mu naa ah, mu ne ko ba xamee dem takk ko la ko tax a toog sa kër ga muy muñ ba mujj laay nayu si moo tax boo ko yóbboo doomu sa mu toog ko waa ki nga ne buy dikk moo wàññi dikk na mais eh, yaa yow moom sa dafa la bokkee nga gis caabi ji mu ngi koy waccaxe di waccax waccaxe caabi joojo ak naqee bokkee joojo moo ko tëj sa kër ga bu ko xama doon kaas ay droit am te dem kële nag mukk ñu ne na ma yow doo dikk sax sax dem jëm man <laughs> donc ko yëga doo di mu ne kooku mooy mooy mooy jala ah kële nekk ah, àndandoor la ci biir kër waaye kële mooy jabar baatab jabar li muy firi mooy ki nga xam ne luñ ko sant mu gaaw def ko luñ ko tere mu gaaw bokk mooy jigéen jabar baatab bar loolaay firi jabar loolaay firi bar ci liñ ko sant mu def ko bar ci luñ ko sant mu bàyyi ko mu loo mu may loolu nag ndiig la boo ko santee du ko def mukk wala boo ko santee muy duus duus yi balaa mu koy def nga dem ba sa xol nag loolu euh, baaxul ba ko def yéen jigéen euh, kon doomi jonga maa ngoog ak doom yi dikkal jël sa doom doomi dikkal jom sa doom ji daal ëllëg mooy moo ko kër waaye doomi jongo ma ëllëg moom la yaayam di wax ne ko àndal ak sa mat ndax ku baax la kële moom la yaayam di wax ne ko yoreel say rakk ndax xamuñ ko dul yow yaa ni yàlla musal ci loolu nag yaa ni yàlla musal ci loolu nag yaa ni yàlla musal ci loolu mooy loolu mooy kasaara mbaabaan dëgg ndem bu mbaam naan di say nekk mu jur doom bu gën wala nga bokk ak jigéen bokk muuru mennam xat moo xam doom ji dikk jàngre ba ko yëlif si sa doom loolu jigéen ji loolu jigéen dina ko war na koy bàyyi xel te jigéen lu mu yàccaaral yàccaaral war naay uh, war a wax ne danaa jël mbër man sañ daan wax ni danaa jël mbër wala danaa jël sëfoor waaye jigéen bu góorgóorloo tuuti war naa mën a wax ni danaa jël buur wala waliyu wala uh, sëriñ wala ko mokkal alxuraan lii rek mooy mbir mi nga xam ne nii moom laa see wax bu ma fekkoon nag fi ñu koy cëree bu ma fekkoon nag fi ñu fi ñu mayee kon fi ñu eh, muuree di cësale lépp lu ci war danaa wax na baay ji nañ ko def baay ji moo war a ganale ji doom ya moo war a maye ji li ñuy maye moo war a jël photo bi moo war a ganale sëñ bi laa ñuy ganale sëñ bi laa ngan jeex rek jëkkër moom ku mu war a ganale jabaram rek la war a waaye ñu topp ci cër gi yow baay ji leen waroon a may li ñuy may moo leen waroon a utal moo leen waroon a ganale sëñ bi laa ñuy pare lii de moom la sarixa tëral buñ mënul loolu nañ xoyofal cër yi nañ xoyofal cër yi li ma gën a bañ ci ñu génne yi ak bagage bi teg ko ci biti bu ko defee catal euh, bët du guddi alal jooju day yàqu benn mu lakk wala ñu sàcc ko wala mu yàqu rek nëbbal yére yi bët baaxut nëbbaleen yére yi bët baaxut nëbbaleen bagage bi bët baaxut te maa fag daam xamee ne bi buñ danañu topp ci cër pour xam fañ dente bagage bala ñu sàcc kaleere jaay loolu dara jar ko yeneen di nëbb bagage yaa na yàlla dimbali jar yaa a yàlla jàppale leen yaa na lu yomb la waare seet lu yomb lu tax mu yomb mu tax mu yomb seet bi boo ko muuree mu ne seet bi boo ko lu ñuul ci kaw lu ñuul li tegu ci kaw kenn yàlla ki laay firi kenn yàlla ki laay firi lu weex li wàcc li weex li wàcc si jëmm seet bi mi ngi mata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi firi mata yonent bi sallallahu alayhi wa lan lan lan moo ñuul ci bët mooy lan moo ñuul ci bët du përëb ba dafa ñuul du përëb ba dafa ñuul waaw xutbaani bi lay firi mu ne xutbaani bi rek lay firi luta tax xef moo koy jege te mënu mënu gis mu ne lu tax xef tiim bët bu ñuul boobu mënu koo gis ci la waxee ne jot si woo ci man waaye jot si naa ba ci sa buumi xol yi mu ne ci la yàlla waxee ne yow jaam bi jot si woo si man waaye man yàlla jot naa si yow ba si buumi xol yi mu ne ñu ne kan mooy bàjjen gi ñu ne kan mooy bàjjen gi ñu ne ko kaay téye si njoor gi ñu ne kaay téye si njoor gi lan la topp yi di wax mu ne topp yi di wax mu ne nañ toppee rañaan tuubi ruubi mu ne nañ toppee rañaan tuubi ruubi ñu ngi cay teg sax na bàyyi génne nañu ñu teg sax na bàyyi génne nañu waaye bàyyi génne wu leen daf leen a fat mu ne waaye su bàyyi génne wu leen dañu fat Baye moom ngi doon tudd ca jamono booba. mu ne Baye moom ngi doon tudd ca jamono booba. ca maam Mataare nag la. ca maam Mataare nag la. way bii may wax. mu ne way bii muy wax. ca maam Mataare lañ ko daan wéyal ceeb. ca maam Mataare lañ ko wéyal ceeb. nañ toppam rañaan Baye génnee nañu. nañ toppam rañaan tuubi ruubi tuubi ngelaw Baye génnee nañu. waaw jaamam yàlla bi na ma jëm ci boromam. mu ne jaamam yàlla bi nee jëm si boromam. dana jàpp ba set. dana jàpp ba set. toroxlu toroxlu. raam raam. alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan na. mu ne alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan na. dem wuy ji boromam. dem wuy ji boromam. jiite fa yonent yi ko jiitu woon yëpp ci jamono. jiite fa yonent bi yonent yi jiite yëpp ci jamono. del si xaar. del si xaar. te fi mu tëddoon a ngi tànk jër seetut. te fi mu tëddoon mu ngi tànk jër seetut. waaw loolu xaaratu billaahi da koy yëg. mu ne loolu xaaratu billaahi da koy yëg. waa ji fi mu tëddee fi mu tëddee Abdoulaye. mu ne waa ji mu tuddee Abdoulaye. ak fi mu ñàkkee. ak fi mu ñàkkee Abdoulaye gi. ak a jege ak a jege. te fi mu toog dara sensé wut. mu ne fi mu toog loxo sensé wut bët sensé wut dara sensé moo tax ndaw si biñ ko muuree pare bàjjen di jàpp ci eh, eh, eh, ci ci njoor gi di raam bàjjen di mooy jiitu. mu ne moo tax biñ muuree ndaw si bàjjen téye si bi topp ci. bàjjen di mooy jiitu seet bi ci. ñu dugg bi. defee tuubi ruubi. ruubi léegi ñu tuubi ruubi. bàyyi génne nañu. bàyyi génne nañu. nañ toppam rañaan maanaam rañaan na jëm ci boromam. mu ne maanaam rañaan na jëm si boromam. bàjjen ji mooy Jibril. mu ne bàjjen ji mooy Jibril. ki Jibril handal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ki Jibril handal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ki muy fekk mooy jëm yàlla ji. ki nga ji muy fekk mooy jëm yàlla ji. looloo tax muy toroxlu. mu ne looloo tax muy toroxlu di raam. di raam di raam di raam. bu ñu ra bu raamee nag baadeem ji bu xegsee ba jub jëkkër ji. mu ne waaye nag bu raamee ba ñu ñëwee jub jëkkër ji. dafay wax nag la Jibril waxoon yonent bi salaam. daa wax yonent bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ne ko ah yaa Rasulullah. ne ko ah yaa Rasulullah. du ma xegg nag. du ma xegg nag. ndax tàngoor wii. ndax tàngoor wii. Jibril su ma yaram attanu ko. man Jibril su ma yaram attanu ko. man kat fii laay xam ak yow. man kat fii laay xam ak yow. yow nga continué. yow nga continué sa dox. foofu la baadeem bi di jàppee euh, euh, euh, seet bi. mu ne foofu la baadeem bi di jàppee seet bi. ba jub jëkkër ji rek ba jub ci këri seet bi daal di baxi njoor gi daal di baxi njoor gi yonent bi daal di delluwaat ci jëm yàlla yonent bi daal di delluwaat ci jëm yàlla ji bañu ci dëpp lan moo koy gindi mu ne lan moo koy gindi ren njëkkale daal di toog bu rek daal di sax xolli daal di tàcc xàq mu ne ren ko téen nag mu ne da ko téen nag daal di ree wàcc wàcc loolu tax yonent bi salaa salaam ne mu ne moo tax yonent bi salaa salaam ne dem na ba jibril gëm kii ñëw sëgg. kii ñëw sëgg. kii ñëw sujjoot. kii ñëw sujjoot. kii ñëw door jëm ci suuf. kii ñëw door jëm ci suuf. kii ñëw toog. kii ñëw toog. ci matam gi. ci matam gi. ci lañ ko waxee Mouhamad. ci lañ ko waxee Mouhamad. moo mottali julli yooyu yëpp. moo mottali julli yooyu yëpp. moo ñëw taxaw. moo ñëw taxaw. sëgg sëgg. siggi siggi. sujjoot sujjoot. taaya taaya. moo tax ñu ne ko Mouhamad. moo tax ñu ne ko Mouhamad. moo xam ba pare daal di mat. moo xam ba pare daal di mat. ku jigéen ki tam. ku jigéen ki tamit. am na ñu bari ñu ko jiitu woon ci ku góor gi. am na ñu bari ñu ko jiitu woon ci ku góor gi. ñi naan doomi bàjjen kii lañ koy may. ñi naan doomi bàjjen lañ koy may. doomi nijaam lañ koy may. ñi naan doomi yaay lañ koy may. doomi nijaay lañ koy may. doomi yaay lañ koy may. bokkam dëkkandoo bi lañ koy may. bokkam dëkkandoo bi lañ koy may. ku ne ñu présenté ko. ku ne ñu présenté taxawal ko. ku nekk rek présenté nañ ko mu mu ñu ne kii mooy jabar. mu ne ku ne présenté ko ne kii mooy jabar. waaye du nekk jabar. mu ne waaye kooku nekkul jabar. bu jabar ñëwee rek. bu jabar ñëwee rek di laat ci boromam. su jot ñëpp toog. ñu ne fooguñu woon ne. ñu ne fooguñu woon ne. wax dëgg yàlla fooguñu woon ne kii mooy nekk jabaram. ñu ne wax dëgg yàlla fooguñu woon ne kii mooy nekk jabaram. yonent bi salaa salaam tam naka si noonu. mu ne yonent bi salaa salaam tamit naka si noonu. mboolem diine yi. mboolem diine yi. diine yonent bi salaa salaam moo ci gën. diine yonent bi salaa salaam moo ci gën. moo ci raw. moo ci raw. ak diine ju mën a doon. mu ne ak diine ju mën a doon. borom jàpp ci dara. borom jàpp ci tous. diine yonent bi daal mooy diine. diine yonent bi salaa salaam mooy diine mooy diine ji gën a rafet. mooy diine ji gën a rafet. mooy diine ji gën a sell. mooy diine ji gën a sell. mooy diine ji gën a jub. mooy diine ji gën a jub. mooy diine ji gën a taaru. mooy diine ji gën a taaru. mooy diine ji gën a baax. mooy diine ji gën a baax. ci ngay sukkandiku rek. mu ne si yéen kuréel rek. egg fi nga bëgg a egg yëpp. xaaral si nga bëgg a xàgg fépp. loolu moo tax. mu ne loolu moo tax. muur seet li yomb la. muur seet li yomb la. moo taxoon. mu ne loolu moo taxoon. ca muur ga. ca muur ga. ma ma ma muur. mu muur. ba pare ñëw raame. waxoon ne. mu ne ci la waxoon ne. bu leen eh, eh, wax dara ci bi. bu leen wax dara ci jotaay bi. wa awalu wala aaxiru wa zaahiru baatinu. wa awalu wala aaxiru wa zaahiru baatinu. seen seet bi muuree naa ko saam. mu ne bi muuree na ko saam. jaar mbiri na. jaar mbiri na. ñu wàcce ko daal rahmati. ñu wàcce daal rahmati. dëkk bi yërmande bi dëkk bi yërmande bi. te bàyyi taxawoon na ca mbiri na. mu ne te bàyyi taxawoon na ca mbiri na. nag la seen nii yëpp gisuma fi dara gisuma fi dara lu dul ay étage yu weex tàll laa lu dul étage yu weex tàll rek laa fi gis waaw waaw am na mu ne waaw waaw am na de booba xoli góor yàlla yi mu ne booba xoli góor yàlla yi yi bind ci biir yàlla bi yi bind ci biir yàlla bi nga xam ne seen màggaay nga xam ne seen màggaay ak seen xaatir ak seen xaatir jàll na ba tab doomu aadama jàll na ba tab doomu aadama boobu loolu la bàyyi doon mu ne bàyyi boobu loolu la junj baatin bi xegsi na mu ne baatin bi xegsi na waaye bàyyi leen xel na saar bi dana mu ne waaye leen bàyyi xel ne saar bi dana dikk

gënal nangam. boo demee gënal nangam. li waa ji waxoon rek. mooy li waa ji waxoon rek. mu ne booy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne booy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. em ci em ci Abdoulaye. em ci Abdoulaye. mu ne xamoo yonent bi sallallahu. mu ne xamoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne waaye bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ca Adama nga koy dale. ca Adama nga koy dale. mu ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne ñu soxlaa may audience nag nga si ci bàyyi. mu ne ñu soxlaa may audience nag si bàyyi. mu ne loolu moo tax. am borom kër xam borom kër bi mooy lan. mu ne xam borom kër xam borom kër bi mooy lan. am soxna xam soxna bi mooy lan. mu ne xam soxna xam soxna si mooy lan. ndax dañoo wax ne booy tànn soxna da koy tànn ko bu rafet. dañ ci ko te boobu nag bokk na ci liñ tànn ci wàllu soxna mu ne mu nekk borom diine loolu tam tànn nañ ko ci mu nekk borom diine su amee jikko borom am borom diine rek dana nekk borom secret dana dana nekk kuy denc buub koo xam ne bii nag dafay am baatinu xol loolu nag bu ko jigéen amee rek raw na fonk sa diine waaye na fonk sa borom kër jaamu ko ci biir jaamu bi ngay jaamu yàlla nañ ko jaamu sa borom kër ci ngay jotee léppi ngërmandeem te boo jotee léppi ngërmandeem mooy sa léppi àjjana àjjana di ñuy wax ne boo jaamoo sa borom kër eh, da ngaa eh, da ngaa dugg maanaam boo fi bàyyee ko da ngay dugg àjjana loolu dañ kaa wax ne ci eh, saay bi waaye dugg na moom ci baat bi maanaam fi nga nekk nii fi nga dugg àjjana lan ngay dugg àjjana mooy dugg àjjana euh, jigéen mooy nga liggéeyal sa borom kër ba am gërmandeem bu boobaa hmm. yenn jalaal yi hmm. doo ci dukk maanaam lan mooy yenn jalaal yi ñu ne doom kat euh, daf doon jëfandikoo lu bon li hmm. tey ñu ko hendal tey ci barab boo xam ne bii baaxul maanaam ñëpp seere na moom kay li naan gi muy naan moo tax mm. gars yi teg ko kii mm. wala mu nga tëdd ca digg mbedd ma mm. euh, kaa leen xool ko dafa jëfandikoo lu bon li yooyu maanaam buggal moomu sa xol bi ni mooy naqadee euh, loolu moo tax ñu ne ku ku ku sonnal sa borom kër da ngay dugg safara waaye boo ko sonnal dugg àjjana waaw bu la leera na sa borom su bàyyeekoo fii rek daara la jëm. Hmm. su bàyyeekoo daara ci seet mi ngi daanu ci ci mbagg baayam hmm. dem na ba nga xam ne bee ne li baayam doon liggéey dem na ba ne ko bàyyi noppaloon man ma liggéey ko. Hmm. loolu mooy jigéen bi dugg àjjana. jigéen bi dugg na mooy ki nga xam ne waxuñ la na sa doom mu nga naan ba maa di tëdd ca mbedd e gune yi ko dóor wala nii de ko foyee. wala ñu ne ceeb xoolal kii ni mel ñu ne ah kii nga xam nga ne ndeyam a ko sëy. kii ne naan ba maa nii de bëri nga ci mbedd yi. ah mm. wala mu tëx lu bon loolu ba nga xam ne daay suma yërëm yi tàggoo sagom mm. loolu mooy safaray jigéen mm. naqadi na ci nga jur doom ba pare nga gis ko muy jëfandikoo lu bon li nga xam ne ku ko romb ne cëpp waaye yàlla dimbale la nga am doom joo xam ne bii ne ci salaatu faatiha la nàmp maanaam ween woo xam ne bii ne borom dafa tër bi yu ba xam yàlla mu nàmp salaatu faatiha daanu ci dënn baayam bi nga xam ne bii moom itam ci salaatu faatiha lay dund Mm. jàllante boobu noonu mooy doom ji nga xam ne dafa dugg àjjana yaayam dugg àjjana moo tax fi eh, waajur di noppaloo rek mooy mm. suñ toogee vingt quatre heures boo xam ne bi waxuñ ko ne sa dooma nga màndi mm. waaw sa dooma nga na la màndi na ba mu nga tëdd si mbedd bi bëre bi wala eh, def na nangam maanaam eh, nangam nangam wala nanga nanga wala mu nga na leen di génne ci yóbbu nañ ko ci benn kër mu sàcc bagage bi ñëwoon pour yóbbu <laughs> naqari xol googu muy tàngal sa xol bi loolu mooy safara jigéen mm. moo tax ñuy wax ne ku ku ñulag sa jëkkër rek yekk sa doom mm. nangul sa borom kër mm. nga nanguli yàlla xam rek ñi ngi ñi ngi gën a rawante jigéen ñi ngi gën a rawante rek ci nangu nangu rek soo nangoo rek yàlla teral la waaw boo seddalee sa xolo boroom kër rek sa xol bi da sedd hmm. waaw loolu moo tax hmm. gën a la nangu te loolu bokk na ci tërbiye ci yar bi nga xam ne bii nag yéen da ngeen a hmm. judd la yar boobu waaw kon mën ngeen cee gën mën ngeen kaa gën a yaatal gën ngeen ko rafetal bëgg sa boroom kër lu neexul sa borom kër bu mu la neex bul wut sa xarit wutal defal sa boroom kër rek mu nekk sa xarit waaw lépp lu ngeen wax ci biir néeg bu mu génn bu mu senn nit dafa am baatini xol hmm. soo ko defee rek da raw hmm. raw gi duwul ne da nga njëkk ci moom raw duwul ne da nga ci moom raw hmm. gën kaay nangu rek nangul ba tëdd ba maasig suuf luñ buub nañ la sotti nekkal mbalit waaw boo nekkee sët rek da nga sut li nga sën sën moo sët suuf yi kii yëpp moo ko sët kon luñ jëm luñ buub rek xam ci sën moo tax sën gëdd hmm. waaye nag boo demee ba soxlaat morsom hmm. boo xam ne soxla réer na la wala nga soxla dara hmm. da nga demaat ba ci sën ba koo xam mango tam boo ko soxlaa bëgg ci jiw da nga dem ba ci sën ba foofu lañ koy sotti moo tax te am ngërmaane yàlla mu ne am sa ngërëmal borom kër gannaaw boo jaamoo yàlla ba pare sa jaamul sa jëkkër na nekk sang yow nekkal jam ci ronom bul mës a yëkkatiku ci kaw moom na nekk sang na nekk aji ki xam yow yaay ki xamut na nekk aji kiy jox yow yaay kiy loolu yëpp boo ko defee rek euh, foo bëgg egg dañ ci egg te sa borom kër seede ci yow lu rafet loolu dafay waral rek ñëpp seede ci yow lu rafet euh, dafay waral rek ndam loo xam ne bii ku sëyeeti ëllëg dañ ko wax ne ko royal ci diw mm. ku fa wàcc itam danañ ko wax ne seetal ci diw loolu doy na ndamal jigéen ji sëy ci kër mm. soo demee bëggal sa borom kër bëggal sa mbokki borom kër mm. bëggal sa waajur yu borom kër lépp lu sax ci sa borom kër rek na nga ko fonk bëgg ko ndax kon bu la yàlla boolee jëmm ci baax euh, nekkal roy def waaye nekk fa tam tànneef nekk un tandem bu baax euh, jigéen dama baax a baax a baax a baax bañ na moom moom borom këram hmm. te fekk egg sewa góor nag foofu des na jigéen dana baax bañ na xay diw moom moom jëkkëram rek moom moom borom këram moom moom borom këram di hmm. fekk la moomee borom këram duwut ci wax hmm. ci nangu rek la ko moomee ci nangu rek li nga xam ne bii nag de yaa ngi xool léppam yaa ngi xool euh, lu ko métti yaa ngi xool ndax xiif na yaa ngi xool ndax feebar na yaa ngi xool ndax am na lu ko naqadi Hmm. loolu yëpp bu dikkee ci yow mu sedd hmm. foofu mu bëgg la nit ki bu ko bëgg rek mu bëgg la hmm. <laughs> ku ko bëgg nit ku ko bëgg rek mu xam ne bëgg nga ko mag ku ko bëgg rek mu xam ne bëgg nga <laughs> moo tax gën a la góorgóor loolu laa la doon dénk léegi eh. dinaa la ko dénk loolu laay <laughs> dénk njaboot gi yëpp mm. loolu laa leen di dénk baax nangul ko nangul ay bokkam mm. nangul ne nit ki nag euh, euh, euh, buy sëy mi nga mel ni bi ngaa dem marché rek mm. bi nga xamee sa ndugg pañe de dugg rek lu nekk da ko jël waaw da nga jël lale da nga jël lale da nga jël lale ci si biir sëy bi tam noonu laay demee biir sëy bi tam da nga jël lii da nga jël da nga xam ku la nangul da nga xam ku la nangul da nga xam ku la lii waaye ñoom ñëpp boo leen nangulee rek dañ dem ba ñoom ñëpp ñu nangul Ah, Bako tere rek da nga dem ba ko. Ah. Su ah, defee ah ah wax wax dëgg yàlla dëgg yàlla moom amal morom séntu woon nañ ci yu bëree bëri ndax bu ne taax la nangam nangam kaalax la jógee ko waaw yooyu yëpp euh, wax dëgg yàlla gisuñ ko ci moom ak ay taalibi daal lañ gis ci moom waaw te bëgg na jëkkëram wax dëgg yàlla nangul na ko nit ku noppi la te gàtt na tànk euh, euh, wax dëgg yàlla jabar la bu boobaa rek jeex na <laughs> nangu rek Euh, bu lañ lañ la lépp lu a doon rek soo nangoo rek nangu ko waaw nangu rek su ko defee rek yàlla dana la dimbale euh, euh, taax kaw état France Sénégal hmm. yooyu yëpp amul xam nga li am mooy mbaax rek ak hmm. ak jub ah, hmm. foo ne rek mu fekk la baax rek moo am ak jub mm-hmm. foo ne rek dana la fa fekk mm-hmm. góorgóorlu rek boo góorlu rek yàlla dina la may doom yu barke mm-hmm. dañ ci may dañ ci am meññeef bu barke insha allah rabbi liñ ci ñaan yàlla yàlla dina ci def ba def ci lu karam sax doon ci jaam yàlla waaw la koy ñaanal yàlla yàlla yàlla barkeel njaboot barkeel